boo ko xoolee ba ci biir am na ñoo xamante ni fomm dafa bari ci ñoom ba tax boo takkee yaa ngi dégg jabar moom mooy loolu fomm am na ñenn ñoo xamante ni en solo la nekk ci ñoom ah du caagi ni dañuy foow ak ñeneen mais dañuy def li tubaab di wax naan dañuy masturbé wu maanaam góor ñu ci bëri jeunes yoo xamante ni ah, ils ont avec peut-être leur téléphone wala feneen ak feneen maintenant dañu xam ni neer yi nga xamante ni dafa nekk ci nit bari na ci yenn yu nit di xool di ci am yëg-yëg parce que bu njëkk sabar bu amoon bu góor làqatoo bu xoolee tey jii nii pooju jigéen am na yëg-yëg bu rëy bu muy am ci moom tey jigéen dafa mën la romb dangal wala mu am nu mu mel nga xool ko xam ni tey lii sensibilité ci moom yëpp mi ngi feeñ mais dafa mel ni sa neer yi dafa burle maanaam yëg-yëg bi ci góor doon am amatu fa léegi nag am na po moo xamante ni ñu bëgg ko ñu bañ ko bari na ci réew mi mooy moo xamante ni tey ñi jot seen bopp ak seen loxo ak ñi nga xamante ni tey ñi ngi fo ba tey jii nii bu ñu takkee jabar am ko tiré biñ ci wara tiré man na amana yaangi dégg man na man na man na baña ñak mais d'autre part aussi ni mu mëna nekk ci xalé goor la man nekk ci xalé jigéen yi amna ci ñenn ño xamanteni xam nga ni demono dafa tollu bo xamanteni ñom niñ koy waxé ci seen biir xalaato nekk ak say ga gel set ci la nga koy bayyi mu sedd donc lolu idée la yu nga xamanteni dañ ko def seen bop parce que ñom gel bi ci bopam xalé bu jigéen bi dana japp ni ki est ce que ma nga fa wala nekk fa dafa ngembo glace wala wul glace mais nak leneen li nga xamanteni lu yees la lu ñu nemmeeku te gis ko mooy xale jigéen yi désormais bi ñu gisee ni kër yu ci bari tas na kër yu ci bari yëngu na parce que xëy na ni mu fa waroon a demee dëgër gi dëgg newu fa mais bon seen loxo bu seen loxo la ñuy yónni pour xool affaire bi ma nga fa wala newu fa ah. Ah. waaw ah ku ci nekk yaa ngi dégg kenn foo nga yónni sa loxo <laughs> xool ba xam mi ngi fa wala newu fa <laughs> waaw balaa ñuy dugg